mbokk yi teewlu ak Cheikh Alane seen seen bii di Pikine Info seen émission ëttu xam-xam tey dalal nañ beneen kàngam beneen buur yàlla keneen ku yëngatu ci wàllu xam-xam ak ci wàllu faj muy Serigne Madické Gadiaga nekk borom xam-xam bi yàlla may nekk fii ci Géejawaay ah, amokat kër si Moussa Bassirou ku nekk si kër si Moussa Bassirou rek laajte ñaari bayfaal ku taxaw si ñaari bayfaal yi incha allah boo moom boo ko wootee boo ko woowee téléphone da ngeen mën ci kàddu yàlla ak mbaa ak mbaaxam kon suñu di ko gaye la ñu jox la kàddu gi nga tàmbali. waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa Pikine Info maa ngi leen di nuyu wax di siyaare waaw di leen ñaanal jàmm nag te di ko sàkku ceen di waa àdduna bépp waa Sénégal. Euh, li may jëkk laaj mooy wàllu tële góor gu tële sëñ bi koo xam ne kii maanaam euh, day tële day gaaw a yegg wa ilaa sakaram dëgër kooku waaw bu dee wàllum tële moom euh, am nañ ci saafara bu fekkee lu ko dab la wala muy luñ ko def moom mas na koo dindi mais bu fekkee da ko juddewaale moom amuñu ci xam-xam amuñu ci xam-xam. moom moom li koy indi bari na ndoxam siti ci la bokk. ndoxam siti ak hémorroïde. ak yeneen feebar yu baree bari. Mhm. day day day day waral tële. Mm-hmm. waaw ba bari na bari na ay feebar yu koy ay feebar yu koy def. kenn daal bu ñëwee si yow da koy appal ne ko ñaata fan ma xamee lan lan mooy sabab bi. Uh-huh. bu fekkee da koo dab wala muy lu ko def moom lu ci nekk bu ko xoolee ba xam ko rek danañ xam ba xam ci ci ban diir lañ koy faj. incha allah. ci kàttanu yàlla. bu ma jógee ci ndox si su ma jógee ci wàllu ngóora damay ñëw ci feebaru hémorroïde jàngoro mooy waaw xam nga ñoom ñaar moom ndoxum si bi nga wax sorewuñu mm-hmm. daanaka benn rek mm-hmm. toogaay bu yàgg la koy def mm-hmm. moo muy toogaay bu maa doon nag moom moom da day même moom ndoxum siti moom sorewuñu waaye bu ci maa ñaar yooyu insha allah ci kàttanu yàlla moom saafaram am na fi insha allah waaw gémmiñ gi xeeñ moom buñ ko xoolee ba xam lan ma sabab bi su boobaa moom ma ma na ko faj même buñ ko mënut a faj itam dañ nga dem ca ñu xool ko incha allah. mais mais mais nag waaw moom bari na ba ma bari na sa ma bari bari na lu koy indi. muuraan. ak waaw ak waaw. ay xeet ba ñu bënn itam. yooyu yëpp maam da day waral fi fi ne eh, gémmuñ ko xeeñ ak yeneen ak yeneen dañ ko saaf insha allah bu ñu ko xoolee waaw xalwatu moom euh, bu fekkee ñu séq ci wàllum ñaan mm-hmm. bu ñu xoolee ba xam ne yow mi euh, defala la xalwatu yi moom jëru ko buñ mm-hmm. ko def mm-hmm. waaw bu ñu xoolee ba xam ne moo ci jaadu dañ koy def insha allah ça dépend nag ci ñetti fan wala wala wala une semaine wala quinze jours yi waaye lu lu mu laaj rek incha allah ñu def ko bu soobee yàlla. wàllu seet da ciy yëngut listixaar. damay seet damay listixaar. Mm-hmm. waaw damay damay seet. waaw ndax ñun moom suñu liggéey moom si daanaka moom dundu ko ci mbir mukk seetuñu ko. Mm-hmm. waaw moo tax ñu seet faaw ñu listixaar. ndax ñun ñun duñ làmbatu mel ni mbir. mënta ñàkk moom ndax làmbatu baaxut faaw nga li ngay fajum faaw nga xool ko ba xam fu mu ne nga doo ko mën dindi mais boo ko làmbatoo rek danga ca yàgg lool mbokk yi kon tey ñu ngi dalal kàngam sëriñ Madické Gadiaga dégg ngeen ñu wax ci xam-xam ku dégg ni mu waxee rek tàmbali gi xam ne dal gi ak yar bi wane na am na xam-xam bu ko defee kon sëriñ Madické ku la soxla woon ci ban numéro yoon yëpp. waaw numéro ba benn la. Mhm. mooy whatsapp bi. ku ci woote ku ci wootee ñun nga jot incha allah. mooy 77. 882. 53. 34. 34 waaw benn numéro boobu la. 77 882.

waaw bari na nit ku ne ci aw yoon waaye fii làmmiñu ko tee àgg fa mu jëm wala bëri ko tee àgg fa mu jëm mm. lu mu ci moo doon tam insha allah mu ci jokkoo ci kàttan yàlla moom saafara mën na fi am mm. man kat mel naa ni mu war mel waaye képp ku ñëw bëgg ma bëgg si soxna diggante bi yàqu wa ilaa su ma takkee sëy bi yàqu jigéen ji am rab maanaam maanaam maanaam ndax da koy saafara wala saafara waaw damay damay ñëwaat ba ba tey ci wàcc ci wàllum seet rek xam nga rab ak lu mën a doon bu dee jigéen ci taxaw yépp faaw nga xool ko ba xam ki lan moo ko téye bu dee ay rab la tam mën nañ ko teg ci aw yoon insha allah ba lam bëgg mu am ko soob yàlla moo xam muy góor moo xam muy jigéen ndax ci ñoom ñëpp la nekk waaw moom daal moom bu dee bu dee rab moom danañ ko xool ba xam lii lan mooy sabab ba noppi bu bu ko defee nag lañ def ñu lañ cay def ñu def ko insha allah su mhm. ko defee kon maanaam damay jàll ci wàllu gàllankoor maanaam koo xam ne kii maanaam ay mbiram dafa tëju maanaam lu mu dugg rek du ubbeeku. waaw xam nga gàllankoor moom am na te dafa bari mm-hmm. bari na ñoo xam ne nit moo leen koy def mm-hmm. bari na ñoo xam ne sàggante dana dana gàllankoor doomu aadama mm-hmm. pour xeet yu ñàkk caaxaan yu ñàkk faydi yii maam fi ne day tëj nit. comme ak ak xeetu mooy yàlla yëpp. wala mm-hmm, yëpp moom day gàllankoor doomu aadama. ak moom noo ko maam waxuma la sax yow yow mi gàllankoor waaye yi maam ñi nekk ak moom sax te day day gàllankoor ndax sobe sobe baaxul. Mm-hmm. waaye bu bu dee tëju moom incha allah mm-hmm. bu ñu xoolee ba xam ne lan moo lan moo ko tëj. incha allah mën nañu ko tëj bu soobee yàlla. mën nañu allah. la géejawaay amoo kat kër suñu Moussa Bassir ku ñëw ci kër suñu Moussa Bassir rek maanaam nga laaj ci ñaari Baay Faal ku ñëw ci ñaari ko ci numéro yi mu joxe 77 800. 882. 53. 34. 34 77 882 53 34 numéro Serigne ku ci woo di ko jot numéro bi ñu ngi affiché ci kaw kanam état bi kon képp ko am soxla rek na nga gaaw jël numéro bi woo ko boo ko woowee daan si dugal ak jàppandi parce que ab talibé la te ku gëm sëñ bi la te it maanaam léppam ak talibé la 77 882 53 882 53 34 34 77 882 50 mooy numéro sëñ Madické Gadiaga numéro bi ñu ngi affiché bi bu ko defee kon sëñ Madické maanaam bu ñu jigéen loolu dañuy ñëw ci muslaay bayre ak wërsëg wala ñu ñëw ci benn rek muslaay soog ñu ci bayre waaw xam nga muslaay bayre ñooy ànd ndax ku la jox bayre rek te jox la muslaay pour dara bëgg a sànq ndax bayre moom euh, doy waar euh, façon doy waar boo xam ne bu ànd ak muslaay rek mën naa sànq borom moo tax faaw nag moom ku la jox bayre faaw faaw mu boole ci muslaay insha allah bay waaw mën na mën mën nañoo ànd ndax man du ma jox nit ki mukk bay rek hmm. di fa bàyyi muslaay ñoom ñaar ñoom ñaar laay boole jox la koo xam ne fii dañ ko insha allah waaw ndomba yi moom euh, deru béyu juróom-ñaari gaaw lay doon doon juróom waaw doon deru béyu ñuul waaw moom kaaraange bu baax la hmm. am na ci loo xam sax moom duñ ko wax duñ ko wax ci télé hmm. waaye insha allah bu ñu ki ki ko soxla rek mën ko wax dëgg-dëgg li ma jariñ koo xam ne ko dakk ci place am nag place dina liggéey ñu dàq ko waaw kooku itam incha allah safara man na am. mën ko defal loo xam ci li ñëw ci place bi. allah wala sax du wala sax du fa jógee faf mhm. wala wala du place waaw bu fekkee moom da daana ci place. Mhm. di fa liggéey. Mhm. te bëggu faa jógee. buñ jokkoo incha allah du fa jógee. mais bu fekkee dafa sàggan ba jógee fa itam incha allah buñ jokkoo ci kàttan yàlla dana fa dellu. koo xam ne kii dafay ut ay kayit yoo xam si day tax ma nekk ci liggéey kayit yi tuuti kooku it da maanaam maanaam wàllum kayit rek ak lu mën a doon. waaw allah buñ ci jokkoo. Mm-hmm. Euh, buñ ko xoolee. ci kàttanu yàlla ma mën jàppandi. ku bëgg a liggéey liggéey te ko. waaw ba ba ba tey itam danañ xool baax moom moom lan moo ko téye. ba ba tax mun a liggéey boobu. waaw faaw ñu xool ko ndax ndax ma du ma dugg ci mbir te xooluma ko mhm. ndax làmbatum du ma ko def ah. lépp lu mën a doon danaa ko xool ba xam fan laay jaar ba mën ko dindi mhm. incha allah ma dindi ko bu soobee yàlla mhm. kon yàlla bu baax julli ci bi sant Serigne Touba te di sant bu baax a baax ah di leen wax ne sëñ Madické ab taalibe la ñëw nekk fi ñëpp nag incha allah moom ni ma la bàyyi noonu bu ñu jokkoo rek incha yàlla ma ma ma mën a seen seen aajo faju ci kàttum yàlla. incha allah di fàttali mbokk yi mbokk yi tey ñu ngi dalal ab talib ak sëriñ ku gëm Sëriñ Tuubaa yàlla baaxal ay kàddu bi ku dégg xam ne ci daara ji ku ko soxla na nga ko woo ci 77 882 53 34 77 882 53 34 77 882 53 34 numéro boobu mooy seen numéro suñu mu di tëddee mi ngi noonu di affiché ci écran bi 77. 882 comme ni comme ni ko waxee sànq rek eh, julli ci yonte bi sant Serigne Touba si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul waaw tey wax nañu ne nee ñoo ñoo ngi nii eh, di seenub taalibe eh, ne fi ci géej waaye amogaat kër si Moustapha Bassirou. incha allah moom ci kàttanu yàlla moom ku jokkoo ak ñun ci ak ñun ci numéro bii rek euh, incha allah moom danañ jokkoo bu soobee yàlla. muy numéro bi 77 la 882 53 34 moom benn numéro boobu la mooy whatsapp bi ku ku ku jokkoo incha allah ci kàttanu yàlla danañ jokkoo bu soobee yàlla te itam sa aajo dana faj bu soobee yàlla incha bi mën nga